dem beeg dikk gi amoon ay jafe-jafe ci diggante tubaa ak Mbacké sababoob ci oto yii di daw diggante bi ñu tuddee leen ay Mbacké tubaa ci grève boo xam ne ni tàmbali nañ ko ñuy naqarlu dogal gi nga xam ne nii moom la seen kilifa yi jël mu di moytuñ benn oto Mbacké tubaa mu yàpp lu ëpp juróom benn nit. boo calculé aller le tour mi ngi nekk mille mille deux cent mille cent kon daal amoo ci gasoil doo ci mën a am versement te it yow mi sa bopp euh, doo ci génn xam nga loolu daal moo tax dafa métti trop ci ñun moo tax daal ñu xëy rek nañ gaare oto yi. ba xam lan la ci état bi wax ak lan la ci kilifa gi di wax moom la ñuy déglu fi mu toll nii. ñii di usagers yi dund ci ay jafe-jafe na kenn ku ci nekk rek yaa ngi doon tuñ tuñi du xool lan moo la mën a yóbbu Touba wala yóbbu la fële ca Mbacke. yàgg naa parce que damaa ko wote kër sëñ Fallou bëgg ñibbi mais ñoo ngi naan trois 300 francs bis yaa ngi daw oto Touba Mbacke daw ñu. waaw ah, loolu coono la yéen. bu metti sax. booy xëy ay coono boo xëy ñàkk bañ a génn. am li problème mooy te sa doole bëriwul boo génn doo dund toog leen ba ñu ñu ko mais soo toogee sa kër il faut nga am loo dundee. ndax yëgoon ngeen euh, mesure bu ñu mel. ci état bi yi dañuy wàññi dañuy wàññi client yi. non loolu yëguñu ko woon man tey laa ko yëg suba. Euh, ñaata nga fay pour dem ñoom li 500 la jox paas bi moom seer na trop. waaw daan loolu du yenn maanaa la. ah yenuwul maanaa moom diggante bi 50 francs moo ko daan paas ñu dem ba ne 300 la loo koy xam nga ne yenuwul maanaa waaw seer na trop. ñaar ngeen doon nga daan fay Mbàkke ak garage waaw 100 francs sa baax na mais 200 mais 500. seet na trop mais dañu xam ne situation moo tëddee noonu rek ah, di ñaan yàlla génne ñu ci jàmm ak salaam bañ delluwaat prix ba daan fay rek nit ñi waruñoo tampale ko waruñoo mais liñ def nekk tampale ko la foog ñoom ñu dawal ci yërmande dégg nga damaa far sama waa kër benn policier ñëw ne ma dugg leen ci biir damaa jël sama si dugg ci biir xam ne c'est pas normal. bu dee am na ci ñoo xam ne nii seen liggéey dox na ci du ñenn ñu dul taximaan yi ndax diggante garage ak Mbàkke rek nga xam ne nii ñeent fukki dërëm lañ ko doon fayeeku tey ji diggante boobu ñoo ngi koy fayeeku téeméer. non vraiment yëf yi métti na trop waaye dañuy ñaan yàlla suñu borom saafare ko rek gënaluñu wax dëgg yàlla. li ñuy def nii gënaluñu dañ ci amul pexe rek. waaye ñaan yàlla yàlla na ko yàlla saafara barke Sëñ Tuubaa. ñaata client lañ leen may. ñaari client ñaari client ñaari client waaw ah mais sant yàlla rek dañuy jéem rek dañuy jéem rek waaw lu ñu jéem a taxal rek Mbacke Touba waaw 250 300 600 temps normal ñaata la doon ah temps normal ñaata 200 300 200 non 600 la ñuy yeb fi ñu toll nii 600 ah, waaw ba tey ji jàngoro ji di coronavirus di indi ay coppite ci biir askan wi ginnaaw dogal gi nga xam ne ni moom la jëriñ ji yor wàll dem nga dikk gi jël mu di wàññi ñi di usager yi ci biir daamar yi lépp nag ngir maytu jàngoro gi bala muy law ci biir askan wi